Thank you. rebonjour euh, chers euh, téléspectateurs euh, yéen min ngeen hashtag bi midi plus heure bu baax bi ci biir midi plus hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram boole ci midi plus lépp loo xamante ni commentaire la wala ay message surtout information en temps réel dañ koy jàllale ci li xew ci biir internet bi ñu njëkkee ak actualité bi fi mu ne nii réseaux sociaux yëpp moom la ñuy partagé mooy mbirum Barthélémy Diaz mi ñu arrêté ci suba 11h55 moo nekkoon heure précise bi ndax dafa bëggoon dem ab dox bu mu doon def fële ca Petersen bu bëggoon caa dem fekk fekk ji Khalifa Sall ak kii di Ousmane Sonko mujj ko arrêté police bi yóbbu ko police yu jëppal gannaaw ba jot nañ ay xibaar ne yóbbu nañ ko police centrale image yaa ngi noonu ñu dégtal leen ko. jaayab gaay en direct la nii ah Barthélémy la ñu arrêté noonu ah, mu ngi noonu. surchargé wuñu defuñu dara ñu ne ñu amuñu droit génn maire wàcc ne kon bu ñu amul droit génn na dox mais lu tax ñu koy pat di ko malmené foofu buntu xatal ko. Mm-hmm. patam patamee ko dugal ko ci biir oto bi te du yoon. Mm-hmm. du yoon ku mu jaajëfal suñu euh, reporter yi gars yu xarañ lañu ak seen téléphone portable téléphone portable nag dafa mel ni télé ci poche fi mu ne nii euh, fi jamono toll la mbirum Barthélemy Dia jaajëfal bu baax euh, Thiaré TV mi ñu doon dégtal vidéo yi mais surtout réaction internaute yi fi mu ne nii bokk na ci actualité yi gën a fës ci réseaux sociaux yi buñ ci jógee démb bàyyi nañu kii di Simon mu Yanamar ak kilifa mi nga xam ne toujours day des ci prison bi image yi am nañ ko mi ngi noonu moom dafa amoon jafe jafe yaram moo taxoon ñu démb ba euh, justice bi daal di koy bàyyi waaye euh, daf ko def contrôle judiciaire image yaa ngi noonu ñu dégtal leen ko. jaajëf jaajëf jaajëf jaajëf nii la pour vous dire que ni euh, vidéo yëpp jot nañ ko en temps réel hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram boole leen ci Midi Plus lépp loo xamante ni comme vidéo lii gën a fës ci réseaux sociaux yeeg internet bi dañ koy jàllale ci émission li xew ci biir internet bi waaye toujours dañuy vérifier information yi muy wér te wóor dafa am solo ndax fi internet toll la wala fi réseaux sociaux yi toll information yi day jàll ba ñëpp di ni moom la ANSD biral waaye waaye ANSD ci ci boppam def nañu ab précision ci seen compte officiel muy Facebook muy Twitter yu ñu am ci réseaux sociaux yi ngir wone ni euh, xibaar boobu wérul ñu ngi ko génne woon ci atum 2013 donc dañ ko changé ci contexte am 2013 euh, ba léegi mat na 7 ans wala 8 ans euh, donc ci diggante bi lu ne euh, xaj na fi donc moo tax waa ANSD ci boppam daal di gën a béral xibaar yi sit information yu bari nag dugg ci information yu erroné yooyu maanaam piège bu ndaw la donc toujours rek ñuy vérifier dafa am solo ci jamono ji ndaxte mën na lëndëmal xelu askan wi kon que dañuy partager rek donc balaa ñoo partager ñoo xam ko bu baax ñu ci bari xawoon na indi jeexi jaaxa ci réseaux sociaux yi mu créé benn polémique waaye gannaaw ba ñiiri di waa ANSD préciser nañ ne xibaar boobu wérul depuis 2013 la te loolu toujours ñu nit ci émission bi dañuy gën a ñëw gan lañ koy euh, gën a béral ndaxte 345 euh, divorces par jour quand même euh, ci euh, Sénégal xawoon na teeyum xel waaw mu nekk benn information boo xam ne piège la waa ANSD indi ci ay leeral am na solo mais surtout dafa mujj gi dafa mujj dem ba euh, boo tàppee Google recherche rek tàppee 345 euh, divorce da dangay gis ni euh, sit yu bari dugg nañ ci joxe xibaar bi donc baax na ci ñuy gën di vérifier loolu am na solo moo taxit ñu nit précision bi ñu nit ñu koy def saa ne am na leneen lu xew mooy mbirum Petropay loolu boo leen ko déggee ñenn ñi dugal nañ ci seen koppar mu baree baree baree bari Euh, te mujj gi dañoo tëj seen si plateforme boobu euh, maanaam dañoo perte seen xaalis te li ñu ko doon def mooy euh, xaalis boobu ñu ci doon dugal dañ leen doon wax ni dañ ciy gagné lu tolloog 300 pour cent ku ko dégg da nga naan ah loolu xaaral ma dugal ci samay koppar ngir mën a gagné lu ni mel waaye ñu ci bari dañ naan xaalis dañ koy liggéey mais ñun defal nañ leen ab gëstu waxtaan ak ci borom xam-xam yi ñu expliqué ñu genre arnaque yooyu nga xamante ni seetlu nañ ko 2.0 la ñenn ñi dem ba ji loolu lañ duppee pyramide Ponzi. wala marketing eh, MLM MLM mooy marketing boo xamante ni daal eh, ñi ci kaw ñooy gën a bénéficier wu que ñi ci suuf moo tax ñu waxtaan ak kii di Mansour Ndaw digital marketing manager koo xamante ni xam-xamam màcc ñu mu jox ñu ci ay explications yoo xamante ni eh, mën nañ ko dégg. Euh, je peux dire, le business qui transforme les vies ordinaires en extraordinaires millionnaires. Donc nous sommes ici au Sénégal. Aujourd'hui, Petron Pay a fait encore du boom. Euh, plateforme boobu Petron Pay Petron Pay ak lépp li nga xamante ne mooy euh, mooy aajo ci arnaque euh, ci internet euh, bëri na bëri na trop et business yi nga xamante ne ni ci internet la nekk di promettre ay revenus yu bëri ñu koy woowee scam scam wala ponzi. Euh, mooy système yoo xam te ne nii euh, dafay dajale ay nit yu bëri euh, di leen cotiser benn somme pour am ay retour sur investissement parce que ñoom au début dañuy investir ñoom ñooñu dañ ci dañ ciy gis seen bopp ñi nga xam ne ñu ngi doog a dugg léegi ñoom ñooy nekk relais yi ñi nga xam ne ñoo investir seen xaalis dellu si ñoom ñooy nekk relais yi ñoom ñooy dem passer communication bi à d'autres mu nekk bouche à oreille bulle bi di màgg. pyramide bi plutôt di màgg di mag di màgg nit yi di gën di ñëw nit yi di gën di ñëw di am bénéfice di woo ñeneen ñeneen di gën di ñëw ba affaire bi di gën di màgg souscription yi gën a bëri xaalis bi gën a bëri euh, ñu daal di tëj pyramide bi tout simplement donc euh, ñu wax les derniers arrivés wala les derniers arrivants ñi mujjee dugg si ñoom ñooy ñoom ñooy ñàkk seen xaalis euh, et souvent noonu lay demee. léegi li nga xam ne ni mën nañ ko xelal nit nit yi pour ñu bañ leen arnaquer ci genre. business yu mel noonu business online yooyu euh, mooy euh, nit kii de base dafa am loo xam ne nii euh, c'est basique mooy sa xaalis balaa nga koy dugal da war a xool fi nga koy dugal danga war a xam ki ngay jox sa xaalis bu dee en ligne la da nga war a xool ndax c'est une institution certifiée wala reconnue par ay organes yoo xam mais doo ñëw rek nit na la business bi mi ngi dox maa ngi ciy dugal sama xaalis mi ngi dem rek nga ñëw dugal ci sa xaalis sa ñëwoo benn kayit. amul amul amul dara loo xam ne ni si yoon la tegu euh, li lay li lay won que ni sa xaalis bii nii tey boo ko ñàkkee di nga mën a toppaat nit ki parce que la preuve tey euh, Petronpay est passé en mode scam maanaam Petronpay tëj nañ ko euh, adresse yi fa nekk boo demee xool ay fausse adresse la xamuñu ñi ko moom xamuñu fi ñu féetee et d'habitude ci ay dëkk yu ay dëkk yu ay îles Vierges la ñuy nekk ay Malte ay Chypre dëkk yooyu noonu la ñuy basé wu mais adressé dañ lay jox naan la ñu ngi Angleterre wala ñu ngi France et cetera donc Euh, c'est à éviter c'est sa xaalis moom balaa nga koy dugal da ngay xool bu baax. am na solo sa xaalis balaa nga ko dugal da ngay xool bu baax mbirum surtout fi jamono toll internet yi ñu ci bari dañ lay proposé euh, que ni kaay dugal sa xaalis mën na tax nga gagné lu bare bare fii ak ay at. am na système bu baax muy mbirum ay bitcoin nag yeneen ak maanaam monnaie électronique am na ñu koy def ci yenn dëkk yi di ci am xaalis suba d'ailleurs dinañ waxtaanee mbirum euh, monnaie électronique yooyu bitcoin bi mais surtout lii baax na ci alerte ndaxte ñun dañuy alerter sensibiliser informer surtout. yéen ñi jëfandikoo euh, xarala yu yees yi mooy mbirum internet réseaux sociaux yi baax na ci tamit ñu leen ni euh, gën a gindi ngir ngeen gën a ñu leen teg yéen yi nga xamante ni day jàll ci réseaux sociaux yi ñu ci bari doon nañ ci def alerte rawatina Mansour Ndaw mi euh, xam-xamam màcc na ci doon na ci def ay alerte yu am solo yoo xamante ni ñu ci bari doon nañ ko suivre moo tax ñu gis ni war nañ ko mën a partager te lu am solo la di ko jaajëfal jaajëfal leen yéen it internet yi dinañ dugg ci léegi ci question yi ak euh, jeux yi mais balaa boobu ñu jàll ci euh, challenge bi nga xam ne démb ak tey mooy def tollu ci réseaux sociaux yi mooy photo lab challenge ñëpp a ngi ci euh, gis nga ko nii kii def na président Macky Sall Ousmane Sonko ainsi de suite bari na ci ñoo xamante ni ku ci nekk defal nañ leen lii ñu duppee photo lab challenge waaye tooñante yeeg yooyu mënu ci ñàkk ndaxte mook internet ñoo ànd gis naa ku ci ne ne président sénégalais yi yomb yomb nañoo diriger. gaa nax gaa naxte démb ak tey ku ci nekk yaa ngi mike mikelu <laughs> noonu la dafa ànd ak internet tooñante yeeg yii ngay gis mi ngi nii message baa ngi nii eh, rey ñu bari ndax xam naa ni internet dañu inspiré quoi <laughs> ndaxte lii seen message yi dafa doy waar lii yëpp prétexte bi mooy eh, Photolab challenge bi nga xam ni eh, tendance la fi mu ne nii ci toile bi ñi nee na dëkk bi mi ngi mel ni tiij yi <laughs> ñëpp a ngi mike mikelu effectivement euh, ñëpp a ngi def seen photo lab challenge rawatina fii ci télévision Futur Média démb gis ngeen bu Pape Cheikh wane naa bu euh, kan encore am na ci yeneen ah yeneen ñoo xamante ni partagé nañ seen euh, photo lab challenge d'ailleurs suñu image du jour photo lab challenge bi la am na ñu def Ousmane Sonko ak président Macky Sall ñu ne kan moo ci gën a jantal def leen continuer leen commentaire ah ndaxte commentaire yëpp euh, dañ koy partager en temps réel ci réseaux sociaux yi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram boole leen ci Midi Plus euh, lépp en temps réel mën nañ ko partager ak équipe digitale bi nekk ci ginnaaw euh, di ñu jàppale ci liggéey bi di leen jaajëfal ñoom ñoo ñëpp ko jiite di Magui Koulibaly bu ñu jógee ci loolu ñu jàll ci euh, question yi démb am na image cachée dañ ko fi bàyyi bàyyiwaat ndaxte mu gis ni euh, ñi ko trouvé bareegul quoi waaw jili CSB di ko jaajëfal moom moo ñuy jox cadeau yi ñuy jox internautes yi ma nga nekk rond point cité kër góor gi lépp loo xamante ni téléphone portable yu yees yi famille Z yi mooy Samsung yu yees yi yëpp jili da koy jaay ma ngi foofu télévision yi euh, frigo yi réfrigérateur yi ainsi de suite bari na ci ay matériel électroménager yoo xamante ni jili da koy jaay Euh, surtout moo ñuy jox cadeau yi ñuy jox internautes yi boutique ba ma nga Colobane fële euh, Gueule Tapée am na ainsi de suite yeneen boutique moom d'ailleurs moo nekk seule boutique bu ñu bu Samsung euh, certifié mooy boutique bu bu ñu authentifié di ko jaajëfal image cachée baa nekk nii wax leen ñu kan moo nekk ci ginnaaw image yi hashtag bi euh, midi plus la suñu net Facebook Twitter Instagram ci suñu plateforme yëpp même bu émission bi jeexee am ngeen possibilité dem suñu chaîne YouTube bu télévision Futur Média euh, replay bi ngeen commentaire ñu choisir ci kenn wala ñaar jox ko ci loo yi bari na ci ne ay gadget bari na ci yoo xamante ni euh, ba ci téléphone portable ji li CSB da koy may jaajëf lii ñu ne ay wit yu bari la. waaw mais am na ay chiffres yoo xam ñi ngi ci biir dafa rax defal leen ñu ko euh, encercler ñu ko ngeen partagé waat ko comme ni ngeen koy defee miin ngeen ko ci émission bi euh, ñu euh, équipe bi ci ginnaaw di surveiller bu baax xool ñan ñoo joxe bonne réponse jaajëfal nañ leen bu baax a baax a baax am na leneen lu xewaat ci réseaux sociaux yi benn plateforme muy Snap dafa bëggee woon démb yenn ci utilisateurs yu bare bare bare amoon nañu jafe-jafe dugg ci lu mat une heure yoo xamante ni paanoon na am na ci yenn site Euh, yu yoo xamante ni seen spécialisation mooy mbirum euh, bëgg yi euh, ñuy tubbee par exemple Snapdown ñu bari hashtag boobu lañ ko doon suivre ñoom waa Snap ci boppam def nañ ab communiqué ci réseau social bi di Twitter ngir fësal ni ay jafe-jafe yu ñu jàkkoonteel la dinañ ko résoudre effectivement une heure de temps après la ñu indi solution ci mbir mi nga xam ne paanoon na fu snappaane eh, wala ci yenn ci eh, réseaux sociaux yi wala réseaux sociaux yëpp bu amee benn jafe-jafe ñëpp koy yëg ndaxte utilisateurs yi dafa bari snap d'ailleurs fii ci Sénégal ñu bari ci lañuy def seen commerce léegi commerce digital la ñu bari dañ ciy partager seen ay information seen ay produits yi ñuy jaay bu amee panne ñu ci bari dañ koy yëg comme panne bu mag bi fii eh, WhatsApp defoon ak lii di Facebook noonu la jaajëfal lañ leen encore une fois yéen internautes yi jot nañu commentaire yëpp message yëpp ñu ngi koy gis euh, suba incha allah nañ ci partage yu ci bëri choisir ci yenn ci internet yi euh, daal di koy jox leen ci loo yi nga xamante ni suñu sponsor officiel Jili CSB moo koy joxe ñu tëjee ak challenge bi nga xam ne gis naa ni euh, d'ailleurs xaw ma turu waykat bi en tout cas naar la gis naa ni daal TikTok bi fi mu ne nii moom la ñuy ñëpp di partage ñëpp a ciy def challenge bàyyi xanaa dama lay bàyyi ak vidéo bi challenge bi di xaar sa sa challenge ci way bi sa challenge laay xaar ci lii. je vais faire ça. waaw dinaa ko def tey. waaw boo ko defee envoyé ñu ko. mais xam nga ak ban. ah mooy bi ñuy jël yére yi rek. teg après sol ko. waaw boobu naa ko def aussi. <laughs> maa ngi xaar sa challenge dama koy partagé. ay mag lañu <laughs> mënuñu mënuñu yi xale yi mën <laughs> merci Mamadou Ndiaye. à demain jaajëf à demain incha allah jaajëf.